salihatan tamfahum in xafalu ndegem Sëriñ Tuubaa nag mooy gën a leeral loolu di ko traduire alquran jooju ku nekk war nga ko bàyyi xel xam ne du jaas kon kenn ku nekk loo ciy def ci wiiw na sell te nga bañ koo xeeb te di ko gaawal ndax jamono bi dafa xat jamono bi dafa xat te gaaw ndax bu jant fenkee rek ak fi muy soo benn la fexe ba bis bi jàll nag te jëfoo dara ci lu ci aw yiw luñ la bis mom ñàkk nga ko te beneen ba ca toppit xamoo nu muy kon kenn ku ba neenal say waxtu ku am nag koo xam ne moo ne ci sa kanam ku mel ne sëriñ Abdul Aziz mii di la guider di la teg ci yoon te gisoo ko ci lenn luñ lu ñaaw war ngaa dalal sam xel te gën a góorgóorlu. Mm. te bañ a naw say jëf te loo doon def nga xeep ko te gën koo yokk te xam ne am dénkaane rek la. koo xam ne nag danga ngaa summi sa mbubb di ko dénkaane ñu la koy dencal ci walis kilifa gi moom valisam la yor rek ku indi mu dencal la. moom it foofu mu ci dencal boppam moo waral lu ngeen ko jox mu koy jàllale fa mu ko war a jàllale wax naa ko barki démb ci sama kër ma ne ko mm. mas nañoo tase ci sëriñ saalihu booba yàgg na ñu ngi tase jannatul ma'wa moom mii booba dafa fekk mu génnoon bitim réew bay door a ñëw waaye wallaahi xaalis ba mu jëlee bitim réew la ca ne ci poosam lépp la wax jox ko sañ saaliw ci sama kanam loolee dafa yéem ñëpp te xam naa ne ba muy jógee ci sëñ saalihu benn dërëm desul ci poosam kon kooku naxul kenn te xam na fi mu jëmee dong yi xam na fi mu teg tànkam kon yàlla na ko yàlla dëgëral te kàttanal ko te yàggal ko fi nun daal sëriñ bi jàpp nañ la bu wér ngir bokk ak kóllëre ta xam nañ ni mënee sulaa fay ci sa yëg ak sa mbaax te ku ne xam na ne jamono bi xat na waaye koo xam ne euh, waxtu bu toogee yow man ngeen a toog ñaari waxtu jàpp ñett bërki bii bi muy génne sama kër léegi min wi jot loolu ak yëg la te xam nañ ne amul jot di waajal bis bu toll nii kon loolu nañ fam te fam ñu teg ñun euh, xeeb nañ ci suñu bopp bu baax a baax a baax waaw di la ñaanal nga yàgg fi te amug wér te yàgg a jiite taalibe yi te yàlla yogg leen a taxaw man de am naa yaakaar bu wér ci ne boo jisee sama am ëllëg booy jofal taalibe yi doo ci am kers waaw te yàlla la gën a dëgëral gën fay yàgg lool te lépp loo liggéey sëriñ bi nangu ko te xam naa ne fii nga bokkit li ñuy jëmee ci kër sëñ Touba kenn mënu la ci te loolu pas-pas doo nga ko mën a may ndax ku ne xam na ne fi jamono ji toll am na ñoo xam ne lu ñuy def mën naa am aw des rek lañ ciy joxe waaye yow lu ñëw ci sa kanam loola lépp ngay buub yóbbaale ko waaw sa alali bopp ak la la doo ngay jox ak lépp dara du ca des kon loolu yàlla na yàgg te sëriñ bi nangu lépp bi barakati xaadim rasul wasalaamu aleykum wa rahmatullah waaw di ñaanal bokki taalibe yëpp ngeen yàgg fee yàgg gën a amug wér waaw te lépp lu ngeen di séentu rek ngeen gis ci la kawe njort waaw barakati xaadimu rasul kenn ku nekk amul lu weesu fa ko yàlla cërale yéen nag fii mooy seen cër waaw kon yàlla gën a yàgg rek te lépp rafet bi barakati xaadimu rasul wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi lay sant bu baax de la nuyu baax di la sant ndax moom sëñ Tuubaa moo bari la lu baax waaye moom kenn la ci kenn sëñ Touba yi muy feeñale boppam sëñ Touba day wane boppam ci moom ndax lii muy wax de ñëpp ñi ko xam ak ñi koy dégg xam nañ ni moom mooy dëgg ci moom te it euh, kenn mënu ko cee génne kenn mënu ko cee soññi nag ndax kilifaam yi fi nekk ñi fi nekkaloon ñëpp naw nañ ko nawloo nañ ko ba biir dem da nga sëñ Muntaxa fi nekk ndax du waaye teguñ ko ne ak bokk dongo ndax mbokk gi mu bokk ci sëñ bi da ko def outil euh, pour liggéeyal sëñ bi ndax foo ko seen su suñu ci luy farata rek la jëm te lépp luy yokk lislaam ak yoon lay doon wax dëgg nag moom daa bokk ñi ma doyloo ay xalaatam bay dem ci moom ñuy waxtaani mbir ñuy waxtaan te lépp li mu lay wax nit bu la dee wax li mu gëm di ko dund loolu sa taw tawfeex la moom taw tawfeexu sañ bi la sëñ Saaliw ma ko wóolu woon ba ak ñi fi jaar ñëpp ak mbokkam yëpp ba joxoon ko mu jiite sët sëñ Touba yëpp mu safinat la man te yàgg di wut te defoo di wuñ fi dal nag am nañu fi def yu bare bare bare bare bare ba sëñ bii fi nekk seereel ko ko xam ne mbokk ma dëkk bu yëngu mu jox ko ndigal te ndigal loola kat ba ko jotee moo ko dàqal ndigal yi daan jàll lépp ndax itam euh, da ci daan xëy ngir yàlla ki fi nekkal sëñ bi lam ko digul rek juboo nañ ci ci biir mu soog wax ca kaw daal maa ngi leen koy seeral sama sant ci moom di seera ne jàpp gi ko jàpp ak wëllëri gi baax gi mu wax nit ki dañ ne li arab bi wax nit la mam rek lay joxe baaxam gi mam rek la jël jox ma ko waaye sax xam naa ne melu ma noon waaye ci ñaanam yàlla naa ko mel waaye daal yàlla na leen comme ñaan lit mën nga am yaakaar ndax wet gi mu féeri sëñ bi ak bàyyi laxasaay gi mu liggéeyal sëñ bi ak li muy liggéeyal sëñ bi toolu xam-xam sax rawatina ndax kenn daan nag moom nag ku yëwut ndax jamono ji dafa doy war ba daanaka nit ñi duutuñ laaj kenn masala sëñ mi ñaanal ñu xaalis rek la ñuy wax te xaalis baax na waaye wax na ne aay bi mu wax sëñ Tuubaa firi ko daanaka ku ko dégg nag di nga xaw a tiit ndax yow ma ne laa yeen fax maan wala banuna ilaa man laa bi xel bi salimin foofu moom xaalis amu fa solo xanaa xaalis boo defoon ci lu baax sëñ Tuubaa ne ñi dem barsaax yomal xam boo leen laajoon liñ bëgg ñëwaat na doonte benn waxtu ngi def lu baax ah ay te xam waxam na noonu lay mel lépp luy tegtalu la luy tegee ci yoon la tey tàyyi wu ca te wut ci dara it yàlla rek la ciy wut kon sëñ mi ngi lay sant di nuyu sama bàjjen yi fa rek di nuyu njaboot ga di nuyu taalibe yi di yàlla yàgg ñëw yàlla fekk sa njaboot gii ndax xaw umpule wuñ bàyyi boobu mi nga xam ni mooy sa mbokk di borom kër gi it fa mu tegoon soxna mbeen ba nga xam ci lu bari bari bëgg ko lool sopp ko lool daan def def ko sëriñ loolee ngeen ko mu jàpp jàpp googee kon boo ñëwee yaa yurif gan ñi mënoon nga leen ñaanal yewi leen ñëpp ku ñëw baax na waaye su ñëw ëpp gën naa baax ñu ngi leen sant di la gërëm yàlla nga fi yàgg baax nuyu sama mbokk soxna Xadi Ndoom nuyoo leeg moom maa ngi lay si soxna Alaaji Ceer ba di njaboot ci kër gi <laughs> ndax daa ñëw def daa yu taalibe daa def yëfu taalibe rek waaw sëñ sëñ moom moom mbokk la xarit la ñu fi nekk ñëpp daal taalibe yi mën leen nuyul ñëpp ah ba jananta soxna Anta Mbacke mu sañoon ma da nga nee toog te moom sa sa nga ñaanul ñun ñëpp daal xam na say kii ñëpp ñëpp rafetlu say kàddu ñëpp la soppit ñi la gisul ñëpp sopp lañ nag ndax boo boo nekkal yàlla yàlla it fexe ñu baax ñëpp bëgg la ñeneen ñi it yàlla xam doy na fa la xam na ku la am yàlla nañ fi ñëwaat déwén ñaanal yow yaa ñaan ba noppi bismillah ñaanal Mbacke. xanaa ndigal ndigal lay doon. waaw def nañ ndigal jox ko waaw amiin amiin amiin allahumma salli ala Muhammad nabi wa ala soxna si yàlla na fa yàlla fas yéene. amiin amiin Mbacke amiin Mbacke